Tidiane tey formation bi ñu jox la sa lijaasa moment bi nga jotee sa lijaasa euh, moment boobu ci nga am liggéey ban yëg-yëg nga ci am. waaw sant yàlla bu ba julli suma mooy sant suñu ñaan di sant waa association FILS ak ñi nga xam ñoo ko accompagner tey ji nii di waa OMV dëgg yàlla du lu ñu rafetlu tey jii ni mérite ñun yëpp mérit nañ parce que ñun en famille lañ doon def en groupe la mbër yëpp bokkuñu équipe waaye wax dëgg yàlla. tey jii nii gis naa fi mbër yoo xam tey yaakaaruma naa nii lañ mel te meluñ noonu tey jii muy lu rafet ma kontaan bu baax a baax a baax suñu chef yi nga xam ne ñooñu doon ñooñu ñooñu ñooñu doon manoeuvre di ñu dajlu ay coono wax dëgg yàlla ñun te ñu leen di fay muy maître Guèye euh, maître lu ma su ma sax damay juum mais daal en tout ñëpp daal maa ngi sant bu baax gërëm. ci moment bi nga jotee sa ban yëg nga am. waa sant yàlla xam nga lii même bu dul man bëggoon naa ko def. waaye dafa dem ba benn instant xam nga làmb ji taxaw na benn instant affaire bi dëgër na bi lii ñëwee sama booy bi mu ñëwee expliqué ma ko di sama jarbaat dama ne ko non dama koy def am ma si xaar ma dafa ñëw rek ma ne ko dama koy def bi yàlla dogalee ma def ko tamit ci instant bi ñu joxaat ma tamit liggéey damay sant yàlla bu baax daal wax dëgg yàlla du lu may kontaan parce que tey jii ñun ñëpp benn lañ famille lañ tey jii ni yàlla dogal na ñun ñoo bokk groupe te ku nekk dafa jàppee moroom comme moroom looloo tax wax dëgg yàlla. ñu bu baax a baax a baax. waaw parce que doo koo xamante ne dañ lay présenté ci làmb ku wax Tidiane Faye wax la professeur de Langsar ku wax Tidiane Faye xam ni nga mel ci làmb tey nga dem ba def lii moment boobu lu wolof naan euh, ku ñaq rek jariñu daj nga ay coono def nga ci lu nekk ba jot sa lijaasa ci moment bi nga jotee sa lijaasa nga am ci liggéey yàlla na la jëkk yàlla na nekk sa njëglaay. amiin amiin amiin di ko di ko rafetlu tamit ñëpp rek di ko wax ne ko tey jii nii nii li président bi def ñu ngi ñaan yàlla tamit ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi ñoo fi même njëkkee jiite ko si euh, Alioune Sall mi nga xam moom bi ñu ñu fexe tamit mu jël yeneen yeneen membre mbër yi nga xam ne ci nekk rafetlu loolu bu baax daal kontaan nañ daal bu baax moo dëgg yàlla association fils yëpp jërëjëf jërëjëf kon nag ba tey ñu ngi fi nga xam ne mooy buntu mairie Guédiawaye ak ñi nga xam ki nga xam ne moom mooy Bamba Mboup ak le DGA ma jëkke si Bamba Bamba ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm. Euh, salaamaaleykum euh, Babacar maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu presse bi fi teew yëpp di taxaw ak suma frère euh, di Souley directeur général ONFP office national formation professionnelle di Souleymane Soumaré ñu ko jiite di am kontaan tey. ndax ñun man Bamba Cheikh Amadou Bamba Mboup di président association FILS formation insertion des lutteurs du Sénégal comme comme ni ñu ko waxee rek ndaw laa bu demoon bitim réew daani sama doole bi ma fa demee yàlla def ma bëgg yàgg bëgg métier garde corps rapproché bi ma demee agence bi nga xam ni fa laa bëggoon liggéeye ñu ne ma mën nañ laa jël mais il nga am formation professionnelle ba pare ndax nit ki mënoo ñëw dugg ci liggéey rek tax am amoo ci formation bi ma amee formation bi yàlla def ma bi ma fa defee at dañ leen tukki tukki jom la waaye ñibbi si fulla la yàlla def ma nekk nitu làmb bëgg làmb ndax boo juddoo Fass màggee parcelle di doomu Bawol làmb da nga koy bëgg bi ma ñëwee nekk un promoteur de lutte commencé tëgg ay làmb mais ci biir loolu ma dem ba seet ni ba saytu xale yi bëri nañu mais bëgg nañu bëri mais ñu ci bëri dañuy entraîner mais amuñu làmb te nit ki bu fekkee ni mu ngi entraîner bëreewul te amul métier mën naa indi ay yeneen yeneen euh, difficulté ci moom ci nag dafa jot xale yi ñu jàppale leen ñu am qualification formation professionnelle ba pare am ñu insérer leen ñu am métier yàlla def ma waxtaan ceeg waa axlu làmb ba déggoo ceeg ñoom ñoom it ñu wóolu ma ci jiital ma ci ma nekk président association bi ñu am suñuy récépissé légalement yàlla def nag ma ñëw seet si waa ministère de la formation professionnelle waxtaan ceeg ñoom daam Diop mi ko jiite bi ma ci waxtaanee moom mu rafetlu ko ne mission bu ko président sant la ci ministre ci ministère am lu mel ni ONFP bi nga xam ne Souleymane Soumaré moo ko jiite directeur général bi nekk nit koo xam ne moom liggéey moom moo ko ñor parce que bi mu ñu ñu waxtaan ceeg moom li tax ma kontaan ci moom dañu ko bind demande de partenariat matul une semaine mu tontu ñu bi mu en audience ci tàng-tàng bi la ni li ma ñor mooy Sénégal xale yëpp am formation professionnelle noonu lañ toogee man ak moom ñu li ñu bi ñu kal ci diggante boobu pour bi ñu kalee Euh, pour def convention matul 15 jours ci pas-pasam moom ak équipe am ñu fekk ñu sum Foundiougne fa nañ signé convention bi tey jii nag ñu commencé formation bi isi à Dakar forme fi 20 lutteurs en sécurité garde corps rapproché tey ci wàllu làmb ba tey ñoom lañ doon remettre seen ay diplôme mais mu def lu rafet loo xam ni man kontaan naa ci ak ñi ma àndal mooy li rafet li mu def mooy ci commencement bi dafa wane yoon bi chemin bi nga xam ne président Macky Sall moom la bëggu dafa tànn ñett xale mais nag ci examen parce que amul xaj seen loolu mooy qualification dafa ni xale yi danañ leen former mais comme composition nga def bac wala nga def wala nga def BFEM ñi nga xam ne mooy ñett ñi nga xam ne ñoom ñoo raw kenn ki am 17 80 yeneen ñaar yi am ku ci ne 17 20 ñooñu mu ne moom da leen di recruter lundi nañu ñëw à l'ONFP pour def formalité yi kon nag Souleymane Soumaré mention spéciale président Macky Sall Souleymane Soumaré teranga googu la defal Cheikh Amadou Bamba Mboup mi nga xam ne moom moo jiite fils di euh, euh, di di di mu lancé flambeau bi frère am suma frère Pape Modou Fall mi nga xam ni mooy directeur de l'emploi moom it mi ngi ci te xam naa ni lu ci mën ci kàttanu yàlla dana ko ci def kon nag ñi ngi woo yeneen structure état yëpp li président ma Sall def ak Souleymane Soumaré chemin bii mu wane mu jàppale ci association FILS ba ci kàttanu yàlla xale yëpp muy mbër yëpp mën a am métier gis ci seen bopp macha allah.